alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man wala wa ma bikum min nicmatin fa min allah wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ànd bokk borom bi tabaraka wa taala ñaa ngi sant yàlla cant gu yàlla nag màggaayam di ko ñaan mu datuwaa may xewal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi ngi sant yàlla julli ci ab yonantaam ñoo ngi leen di nuyu nub lislaam jàmm yàlla yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla doot ki suñu kaw ñoo ngi ñëwaat ci suñu téere bi ñu tuddee itxaaful muslim bi sharxi xisnil muslim min adkaar al wa sunna nga xamante ni boroom xam-xam bu mag moo ko taalif bu ñu tuddee said ibnu aliin ibnu wahbin al qaxtaani jiitu woon nañu amal njël benn jataay kon dañuy ñëwaat ci suñu ñaareelu jataay ci seen émission bi ñu tuddee seen adkaar ñu ngi woon ci ngëneelu tudd borom bi tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala wax ni fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfuruun waxoon nañu ni ko euh, imaamul Baxawi firee wax nañu itam lenn ki ni ko imaam al alaama al cheikhu saadi leerale mun wa afdalu dikri maa tawaata alayhi alqalbu wallisaanu wa huwa alladi yuthmiru maarifata maarifata allahi wa mahabbatihi wa kasarati thawaabi nee na tudd yàlla mooy loo xamante ne xol ak ruux dañoo communiquer te loolu moo lay jural mooy indi meññet bu ñuy tuddee li nga xamante ne mooy xarom borom bi tabaraka wa taala wa dikru huwa ra'u shukri nee na tudd yàlla moom mooy bopp sant yàlla moo tax yàlla subhanahu wa taala digle ko la in shakartum la azidannakum boo leen ma santee man yàlla ma dolli leen bu fekkee da ngaa bëgg ndolant ndolant ci njaboot ndolant nga bëgg ci ay soxna ndolant ci sa wàllu liggéey ndolant ci ak dund ndolant ci wàllu xam-xam ndolant ndolant woo bëgg rekk bëgg nga mu yokkuta sax dëkkal ki sant borom bi tabaraka wa taala ndax moo ni la in shakartum la azidannakum wallahi boo leen ma sante man yàlla dinaa leen dolli mbokk yi ñaand bokk borom bi tabaraka wa taala ngëneelu tudd yàlla ñaareel bi borom bi tabaraka wa taala mu ñu jàngal ci alquranul karim ki suratu al ya ayuha alladina amanu dhkuru allaha dhikran kathira wa sabbixuuhu bukratan wa asila borom bi wa taala mu ne yéen ñi gëm yàlla annidaau li ahli l iman ka annahu yunaadi ahlal iman woote gi ñi gëm yàlla ñoo ko moom mel day woo ñi gëm yàlla ñi eey yéen ñi nekk ci daairatul imaan yéen ñi wax ne da ngeen a gëm nekk samay partenaire man yàlla sant naa leen de leen ma tudd lu bari sama tur de leen ko tudd lu baree baree baree bari dikran kasiiran te itam de leen ma sàbbaal bukratan wa asila de leen ma sàbbaal suba ak ngoon de leen ma sàbbaal guddi ak bëccëg aay bi mooy yaa ayyuha allazina amanu udkuru llaha dikran kathira wa sabbixuhu bukratan wa asila al imaamu albaxawi bi mu koy firi dani ay bi leyli wa nahaar fi lbarri walbaxri wa fi sixati wa fi saqam wa fi sirri wal alaaniya nee na dee leen tudd yàlla aay bi li muy tekki nee na mooy dee leen tudd yàlla guddi ak bëccëg dee leen tudd yàlla ci géej gi ak ci jéeri ji boo nee ci biir géej del tudd yàlla boo nekkee ci jéeri gi del tudd yàlla mooy bitib géej boo wéree del tudd yàlla boo wéradee del tudd yàlla nee boo wéetee del tudd yàlla boo wéttalikoo del tudd yàlla nee aaya bi loolu lay tekki imaam ibnu kathir rahimahullah bi muy firi aay boobu mooy tudd leen yàlla lu bari mu ni amara allahu ibadahu almuminin bi kathrati dikrihim li rabbihim tabaraka wa taala almunim alayhim bi anwaaci nicami wa sunuufi lminani lima fi dalika min jadili lthawaabi wa jamili lmaab alimam alalaama ibnu kathir yal na yàlla yërëm ko nee na aay tekki mooy borom bi tabaraka wa taala dafay digal way gëm yi ñu bari liñ koy tudd ñu bari li ngi tudd seen borom bu kawe boobu nga xamante ni mooy boroom xéwal mooy boroom xéwal yaatu yi bari yi loola itam ca ngay jële ak pay goo xamante ni gu bari la mu a cheikhu yi al allaama bi muy firi aaya boobu mooy tuddi leen yàlla lu bari mu ne yamuru taala al bi dikrihi dikran kathiran min tahlilin wa taxmiidin wa tasbiixin wa min kulli qawlin fiihi qurbatun ila allah wa aqalu dalika an yulaadima al insaanu awraada alsabaxi walmasaa wa adbaara alsalawat wa inda alcawaarid walasbaab fa inna dalika cibadatun yasbiqu biha alcaamilu wa mustariixun wa kafu allisaan can alkalaami alqabiix asayqu shaadi moomu saadi bi muy firi bi mooy tudd leen yàlla lu bari nee na borom bi tabaaraka wa taala day digal woy gëm yi di leen tudd yàlla lu bari tudd leen yàlla lu bari ngeen di wax laa ilaha illallah nay bari ngeen di wax alhamdulillah nay bari ngeen di wax subhanallah nay bari nee na bépp wax boo xamante ni ak jaamu yàlla la rek lu lay jigéen yàlla lool ki tudd yàlla bokk nee na gën gaa néew mooy nga takkoo rek zikkar yi ngay def suba ak yi ngay def ngoon suba ngoon am na ay adkaar yoo xam boo xëyee da ko war a jàng ba mu jeex booy tëdd walla mu ngoonee bu jant yi so nga jàng ko ba mu jeex nee na loolu li gën a néew ci la bokk ak adbaara salawaat maanaam azkaar yi ngay def gannaaw julli juróom yi il ne ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak azkaar mooy zikkër yi ngay def ci ay loom dafa gaar lu mel ni muy dënu li nga war a wax buy dënu am na loo war a wax buy taw ak bu tawee ba sëbét li nga war a wax ay ñaan la ay zikkër la ak yi nga xamante ne sabab moo ko waral nga koy def nee na loola jàmb yi ki koy jëfee da ci raw ay moroomam waaye dana noppaluku dana fekk làmmeñam ci waxlu lu bon wala ab safaan mbokk yi ñu ànd bokk borom bi tabaraka wa taala ngene la yaatu na lool ñetteel ba mooy alquranul karim moo ñu jàngal ki suuratu al ahzab borom bi tabaraka wa taala mu ne wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima nee na moo ngi tagg ñi nga xamante tudd yàlla lu bari tudd yàlla moom na bari tudd yàlla lu bari moo xam ñooñu ay góor lañu wala ay jigéen wa dhakirina allaha aada allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kon tudd yàlla duñ ko jagleel góor bàyyi jigéen duñ ko jagleel jigéen bàyyi góor waaye ñoom ñaar ñépp la yàllay waxe nee na ñoom ñépp nañu tudd yàlla lu bari ñoo nge nag di tudd yàlla lu bari am na nu waajal rëy gu leen yàlla waajal am na lu yàlla dikk mooy yàlla dañ leen fay fay goo xamante ni gu rëy la ajran aziman gu rëy la moo tax al imaamu Baxawi bi muy firi aaya boobu mooy tudd yàlla lu bari góor ña jigéen mu ne la yakunu al abdu min adh-dhakirina allaha kathiran hatta yadhkura allaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an nee na jàmm du bokk ci ñuy tudd yàlla lu bari loolu dafa tudd yàlla ci bu taxawee nga tudd yàlla ci boo toogee nga tudd yàlla ci boo tëddee nee na ñetti étape yooyu yépp dañ ci tudd yàlla te ñetti yooyu rek nga mën a def nag benn nga taxaw walla nga toog walla nga tëdd kon tudd yàlla lu bari tudd yàlla lu bari nee na kooku dalay dimbali te loolu mooy tax nga bokk ci ñi yàlla naan ñiy tudd yàlla lu bari étape yooyu la ibnu kasir bi muy firi aay boobu moo ngi tudd yàlla lu bari góor jigéen ñi mu ne hëya allahu hëya allahu liman hadihi sifatuhum maxfiratan minhu li zunubihim wa ajran aziman wa huwa aljanna nee na yàlla waajal na yàlla préparé na yor melakaan woowu melakaanu tudd yàlla lu bari ñooñu yàlla waajal na leen jéggalu bàkkaar yàlla waajal na leen pay gu rëy rëy te pay googu moom mooy aljana pay googu mooy aljana kon tudd yàlla mbokk jullit yi lu am solo la lu jar bari la lu jar yaatal la temps boo nekk rek waxtu woo nekk rek étape boo nekkee rek millier boo nekkee ci lu bare bare bari ci yenn milliers yi da nga fay tudd yàlla xataa kii dem ci wanag sax am na lu mu war a wax islam bawalu ko dara kon foofu lañu yemale itam deuxième partie bi lu jëm ñu sant bi tabaraka wa taala lu ci dëng ñoo ngi jéggalu hada wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu